dikkati naa coow la ca pandum teen ba gaaña amul baaga turbine yéen a nan man xanaa doo xool ma la weñ waa nga bañee ca mànjaxaan nga sànni nan xeer xupp nañu ne ñu dañ koy tëj ràpp waaye loo ci manti dee git sénégalais yi boo leen laajee moo ko ngeen bëgg dan naan lan dee média yéen kaay bi naan man classement bi génn na ci wàllu audience yi gën ci télévision ak rajo Sen TV ak Zik FM nekk ci première place ba yéen kaay bi nan man labbali fas taxu ta fasa raw fasa nga ca kanam dee média pee la tàmm te masu caa jóg njoogu siise naan man ci bile sondage xamle dee askan wi boo leen jëlee téeméer boo jël juróom ñett fukk ya télévision la ñuy seetaan waaye téeméer boo jël juróom fukk ya bés bu yàlla sàkk ma ni la rajo la ñuy déglu te la ci ëpp rajo Zik FM lay daal di déglu gannaaw Zik FM gaa yaa ngay déglu rajo RFM ci wàllu télévision moom Sen TV dafa ne coowu ca kaw gannaaw Sen TV ñu ne TFM la gaa yi di seetaan gannaaw TFM sunu yëf moom la askan wi di seetaan moom Zik FM ak Sen TV daal di xatar bi ba biir weex daal di teg ci suuf Njoogu Cissé naan man moo ne day programme télévision yeeg rajo yi léegi mu soppeeku présidentielle 2024 deesul waxtaanee lenn lu dul politique ci rajo yeeg télé yi critique yéene kaay naan man booba Bougane Gueye Dany ma ca nekk ci politique ba ma naan bés bu ñu ko falee ci réew mi ñam leen ma fukki million naa ko génnee jox ko ñi nga xam ne ñooy liir yi doogu juddu benn million ma daal di koy jébbal képp kuy étudiant ndax Sénégal ay richesse dong la ndax réew mi li fi nekk ci richesse day daanaka askan wi bu ñu ko séddoo woon ku ci nekk di nga xam ne Sénégal riche wala deux minutes pour lire l'essentiel naan maan moom Bougane Gueye Dany ma ngay daal di taxaw nag fas yéene xeexal étudiant yi ci gin leen faat fekk ñu ngi dund ñoom juróom-ñeenti téeméer ak ñetti junniy étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi le point ak ci naan maan ma nga xëyee wàllu élection yi jëm ci parrainage waaye tam démocratie bi nga xam ne salfaañe nañ ko ci réewum Sénégal direct news naan bugaan gay nga naan bés bu ngeen ma falee Sénégal meññeenteef yi fi am di richesse am daañu ko séddoo waaye tam njàng meeg njàngale mi ñëpp daañu ci tolloo dayo daal di koy bokk ma nga naan politique gu gouvernement bi baaxul santul yàlla faaw ñu soppi ko séddoo coono yi waaye tam séddoo am am yi wareef la code minier faaw ñu xoolaat ko téeméer boo jël ca la fay daal di bàyyeekoo juróom yi ñu jébbal ko collectivité territoriale ya mu ko moom jiital gëm sa bopp naan leen bachelier bu ne ñu xool say not ci noon ne ñu sukkandiku ca jébbal la benn million dooree ko 2025 bii fukki million dees na ko dencal liir wu juddu ci réewum Sénégal bés bu amee fukki at ak juróom mu xool nees ko jëfandikoowee dooree ko ñaari fan ci weeru avril 2024 sénégalais yi de mënees nañoo xool naataange xool am am akub yokkute ndax mooy am ci réew mi la voix du sud naan maan jiital gëm sa bopp benn bëgg la am ci réew mi mooy doon seen jaam yéen sénégalais yi ngeen xupp muy dagg te du ci am benn xaaj ak seen le daa naan man en tout cas Mamadou Yatasaay ma nga naan réewum Sénégal moom 2024 takk leen téere politicien ci boppam moo dul jiitee ci réew mi xam nga gaay yi nga xam ne dañoo ami entreprise judoo ci réew mi tekkee ci réew mi jël ay employé def ci réew mi nit ñi ne jàkk ne amal nañ njëriñ réew mi ñooñu tey ñoo ngéem bu daal di fas yéene yootu réew mi te borom entreprise yi yootu réew mi naa leen xamal ne bàyyi xel ci ñoom ñooy gàddu réew mi 2024 ci lu leer réew mi ko dañee naan man en tout cas ña ngay sécuriser processus électoral bi te F24 moo fa jaar fas yéene karkaraatoo ña nga xam ne ñooy nguuruk Sénégal 24 heures yéene kaay naan man ci wàllu doublon bi ci parrainage bi moom la F24 bëgg wan opposition bi nees def ba duñu tàbbi ci boobu le ndëgg yooyu le parrainage le thème mooy yéene kaay naan man Abdoulaye Daouda Diallo ma nga ca lu toll ci ñeenti téeméer ñeent fukk ak juróom ñaari junni toftal juróomi téeméer juróom ñaar fukk ak juróom ñeent ci ay parrain dina koy jébbal Amadou Ba ñu ñaabar ñaabar jëm ak moom élection présidentielle yi le témoin yéene kaay naan man amadu Badjo bi fi mu ne jàmm day ak fit wu daal da koy dégg ci réew mi rek dundeewu ko diggante kanam ak opposition bi ma ngi cay dund jaxan na ma fu mu déggee teel fii gestu bay boole beneen dal ko ce wet ga fa mu yaakaaroon wallu moom Amadou Ba fala sox yi gën a bàyyee koo gën a miti ci moom yéene kaay bi naan man biir kanam moom Amadou Ba ña ànd ak moom fi mu ne ñoo koy jori xeer ba maar day taali Amadou Ba président Macky Sall daal di taxaw ci kanamam moom may candidat ba daal di suulu fa yàllaaxu président Macky Sall mooy def Abbas mooy dindi mooy buur di bumi Amadou topp ci ginnaaw te nëbb googee mën na koo xañ lu ne moom candidat bu nguur bi ñu ne déetawaay opposition bi may ko jàmm benn yoon fu mu teg tànkam ñu ne ko teggil fii baaxul lëgër ñu na tribune yéen a kaay nan man en tout cas élection présidentielle yi seen kàddu genn la mooy premier tour moom nguur gi day xàttar bi bu biir weex mu daal di teg ci suuf waxtu woowu nga xam ne ñoom nguur gi nee ñu la ñu réaliser ci réew mi mësta am nee ñu li ñu am ci parrainage mësta am yéen a bi nag sampu blaaj lu jën di ragal géej lan moo tiital kangu nguur ne mën nañoo gagné présidentielle bi l'info yéen kaay nan maan en tout cas moom ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour ni ki démb ci assemblée nationale ban koy nattal ak gafaam ma ngay ñaax ndaw yi Pape Malick leen toog leen seenum réew tekkee seenum réew mooy dëgg walf naan kon coow li coow li kay moom moo di Amadou Ba dalloo nañu ñoom nguur gi ay infrastructure yees def nañu ay tournée ña ngay dig askan wi loolu lépp na ngir jàllax askan wi Amadou askan wi lànk luy problème bi le point actu naan man bi kay mooy politique ni mu yëngoo ci réewum Sénégal di bëx bëx yi moom Karim Meïssa Wade ñu ngi waxuk ñibbiseem te de yéen koy xaar ci réew mi versé na caution waaye téeméer fanweer ak juróom-ñetti milliards yoreel na ko askan wi moom Karim Meïssa Wade umpale terrain politique bi ci réew mi ndax gëj na fi beneen bi mooy kàllaamay kocc goo xam ne ñi ngi laam-laamee ndax dégg na koom dégg ko moo ne day bàyyi ba Abdoulaye Wade wolof yu set daanaka ay cax moo ko mayoon nguur gi maître Moussa Diop naan kon beneen jafe-jafe Karim Meïssa Wade mooy double nationalité baa koy xaar tribune yéene kaay naan kon boobu Anta Babacar Ngom ma di fa roccee waa Pastef ci mouvement am di arc mujj gàmm moom ñeneen ñaa ngay dem déem yoo xam ne am na ci milliards yi ñuy dugal ci yenn ci bâtiment fu raas daal di xidéem yeggul wala bu yeggeet liir màgg na fi ba dugg l'école diggante lycée bu Sandiara université Iba Der Thiam bu Thiès assainissement bu Médina canal ouest bu Rufisque route des Niayes yoo xam ne daanaka joxewun ci benn wala it nu koy joxe yàgg na yenn ci entrepreneur yéen kaay bi naan man ñu am baraka wala it ay autorités yu am sañ-sañ nekk seen ginnaaw di leen dooleel tribune yéen kaay naan en tout cas fondation Thierno Wala Ndiaye bu Abdoulaye Wala Ndiaye niki noonu it Abdou Ndiaye bu Dak Média daal dinañuy teggi maruk askan wi nga xam ne ñoo nekk ci wàlli jantang diggante ay forage yoo xam ne daal dinañ koy taxawal ca Bondiwaali waaye tam ay cato do ca Orko Jéré yéen kaay bi naan man terewul am na yeneen yoo xam ne des na ko dalloo te lépp ci teggil askan wi ak coono moom moo ko waral Baara Gaye bu yëmbal sud ci Vox Populi mel ni ku naan maan teggil askan wi coono day bokk na ci bàyyee leen ñu ñu bëgg te loolu mooy teggi loxo Ousmane Sonko teggi loxo Bilal Diatta waaye teggi loxo Jamil maire bu parcelle mi nga xam ne ñoom ñëpp ñi ngi ci kaso libération yéene kaay naan man coowal waa Pastef dafa jegewul sax ak jeex oustaz Assane Seck ñaari yoon ñu jébbal ab bàyyib nëgandiku tàbbal nañ ko géej chambre d'accusation bi tey mu fas yéene sëgg ci dossier Hannibal Djim gannaaw ay retour de parquet yoo xam ne dakkul ci réew mi moom Sat Sadia yéene kaay bi naan man tàbbal nañ ko kaso ni ki démb booba dee ñi yeeyoo kaso daanaka ñi ngi ci mbedd bi di taxawaalu tribune yéene kaay naan man démb ñaari agresseur ñoo daal di taxaw ci moto xaar waa ji mu génn ci banque beeg ñeenti million ñu daal di koy song daal dina ñuy dóor benn bal benn policier daal di dóorit beneen bal keneen koo xam ne ab civil la l'observateur naan koon ci biir grande mosquée bu ndakaaru foofee la ñu tiiree policier bi kenn ci agresseur bi jàpp nañ ko ka ca des daal di daw libération yéene kaay naan man moo ne de ki nga xam ni moom moo tiiree policier bi ci bàyyib nagandiku la nekk nii di liberte provisoire ca wet ga benn jëkkër ak jabar goo xam ne jëkkër jaa nga am juróom ñaar fukki at soxna sa am juróom benn fukki ak juróom ñett ñoom lan jàpp nag ña nga ca ocritis ay garab yu bon la leen fekk ñu koy trafiqué